di wax ne oustaz. Mhm. Euh, ku mel ni Abdoulaye jax mhm. li muy def ci daara ku mel ni macha allahu taala ñeneen ak ñeneen tant d'autres xoolal daaray kokki bi. Mhm. fa Adja Fat Kayre ba mu fay dem di yóbbu ñoom Mortala ak ñoom Moustapha ñuy jàngi alquran. boo xoolee tey daara kokki ñu lay woon immeuble ba bâtiment bu njëkk ba ak mujj bi nga xam ne ñeenti téeméeri élèves fay jàngi te kenn du fay dërëm. ñeenti téeméeri élèves mais ña nga xam ne ñoo fa jànge woon ba génn tey.

papay Awa Dia ca France maa ngi koy nuyu ak umu xayri sama rakk yooyu nga xam ne bàyyiwu ma def man fayuma jàng mhm. moo tax man nee naa leen man am na yoo xam ne su ma koy def mhm. parce que man damay wax ne man yetiima laa woon mhm. Oustaz Khalifa Kébé papay docteur Oustaz Abdou Kébé Oustaz ñoom Abdou Aziz Kébé ñoom day Fatou Kébé seen papa moo ñu jàngal fay mosuñoo fay dërëm macha allah ca daara ja la ñu nekkoon pourtant daawuñu yelwaani dëgg la ah te te dañ doon solu ba set lek ak ñom ñu bok ak ñom lekki man amna xale yo xamne dama leena jëlone indi leen sama kër di leen sang ak sa yu ma leen jëndale dal bu ñu ñëwé la lan démé du ñu waat dal li sayda dafa am lu ñëw sama xel 2 secondes waaw yonent sallallahu alayhi wasallam mo wax mu ne waaw man lam yaarif xaqa saxirana walam yaxtarim kabirana fa laysa minna fa laysa minna gis nga xale dafa am ay ak xale place am du mbedd xale place am du yalwan xale place am du talal loxo ba pare bëgg a jël diine di ko mbubawoo loolu man laa bëgg mu dañ si réew mi. xam nga yenn soxor yi xam ma fa bimaa rahmatin minallahi linta lahum walaw kunta fazzan ghaliza alqalbi lanfaddu min hawlik